diggante frère la ak ñu bokk benn gaal di di di watandoo ci ci ci benn jëmbu gi donc vraiment sànq nag boo gisee ma introduire sama kàddu ci di euh, xaw wutal suñu directeur général aw tour moom xam na ni man du ma du ma la daateeru kenn mais nag aussi ku gërëmul nit boo gërëm yàlla si daat fan yi def nañ fi benn séminaire keroog samedi boo xamante ni li ñu dégg wax ko maa ngi dégg mu koy baamtuwaat nit nag waxu dem ba mu summee ngoo waxu tayam da ngay xam ni euh, dëggu na ci moom yàlla mooy yeggale yéene donc ñun dañu koy ñaanal rek mu yëggale yéene moom euh, directeur général ci rajo beeg toutes les entités du groupe ndax xam naa ne bu yéeneem yeggee rek ñun suñu situation dina améliorer wu te on ne demande que ça les moyens pour travailler ak it euh, les moyens pour yóbbu dara ci kër ga si daat jërëjëf euh, euh, directeur général li nga xamante ni que euh, suñu directeur de la RFM wax na ko ndax week-end bii rek nañ leen def séminaire fii ci maison de la presse vraiment nga nous nu wax nu lépp li nga xamante que dalal na xel wax nga ko comme on mel ni 2019 pays neuf. waaw loolu loolu loolu mu wax noonu am na solo si daat xam nga âge Assane dafa baax âge Assane kilifa la ci réew mi te c'est un homme très très professionnel kenn xameewu ko ci caaxaan te nitu dëgg la donc tey euh, bu yàlla defee ak durée bi mu def ci biir kër gi mu dem ba ñu takkal ko ndombal tànk directeur général de la radio Futurs Médias lu lu normal la lu normal la te xam naa ni ak moom ak ñun ñaan ni ñuy liggéeyee kër gi dina jëm ci kanam parce que euh, première discussion bi ñuy am ak mom mom du bopam la doon waxal mais ñi nekk ci souf la doon waxal xam nga loolu ci la dafa dal xel. dafa dal xel. ci ki nga xamantene mo nekk à la tête d'une entreprise parce que nekk ci top management bi rek di jéem am ay avantages loolu am na ñu bari ñu koy def mais su fekkee top management bi seen yitte yépp mooy que ñu nekk ci suuf ñu jox leen loxo pour ñu mën a dem ci kanam comme nous mu waxee ñu mun a am lu ñu suturloo seen njaboot xam nga euh, vraiment mooy li ëpp importance et c'est le discours que Haj Hassan nous a tenu la première fois bi nga xamante ne waxtaan ak nañ ak mom pour dénk ko yooyu responsabilité donc vraiment maa koy sante diko gëreum té na xamné que confiance bima am ci mom demb ak barki demb gëna yokku tay mom ak toute son équipe muy Babacar Fall di Daouda Diouf di tous les chefs de desk parce que nag. Euh, les correspondants aussi. les les les les les correspondants les animateurs si la ku lim parce que Futurs Médias c'est c'est quand même. c'est une famille entité bu mag c'est une famille. c'est une famille C'est comme ni ma ko la dernière fois dafa am benn slogan bu bees boo xamante ne génne Ben c'est quel slogan ça. waaw ku ñëw ak sa touche personnelle. dégg GFM. sous leader et solidaire. GFM, Soul Leader. Leader. Et solidaire. c'est anglais. Ok. Ça veut dire leader check out, leader check out. Wow. et solidaire. et solidaire. soyons unis di yëkkatindoo di tegandoo incha allah lépp dina baax. directeur li ñu dégg nii suñu xel euh, dal na bu baax a baax may euh, directeur El Hadj Assane Gueye incha allah 2019 lan ñuy xaar sa programme yow lan nga mën a wax ak say auditeurs yi nga xamante ni que fu mu toll nii euh, yow ak sa directeur de programme lan nii xaar ci yow en 2019. d' abord d' abord Sidaat balaa ñuy ñëw ci programme rajo bi ak 2019 di rek feddali suñu solidarité monsieur le directeur général Birane Ndour na na xam ni. kóolute gu mu am ci ñun rek am nañu bu ko ful ay yoon yoon ci moom. Mhm. rawatina euh, président conseil d' administration ndax wax naa ko ci benn jotaay ci groupe Futur Média ne ko yuusu ñun def nañ kër yu bari ci wàllu presse mais patron bu mel ni moom. ci doxal parce que parce que ñun duñu duñu ay matérialiste tax dafa am lu gën matériel am lu mhm. gën xaalis mooy ak yëkk gis nga si mhm. daat président Youssou booy wax waxi dàq nit sax moom day indi formule yeneen. ay redéploiement lay wax ay yóbbu feneen mais jamais moom yaatal rek yaatal yi waaw kooku aussi euh, c' est l' occasion parce que occasion yi bariwul toujours ku ci ne da ngay nekk sa waar di bay rek kii di journal kii di lii mais bu occasion teewee rek si daat nañu ko wax waaw Youssou Ndour euh, moo ñu bot di bëre yàlla bu mu mës a am jël parce que ma bu maa di taal yi sama papa daan wax nit ku la di bëri da ngay ñaan muy daan rek ndax moom bu daanoo kenn koy war yow ñaara lay war ma war ba ñaar di ñu war sax ñun. amiin euh, ñaan genn gi lay defal directeur général di ko defal tout le personnel tous les responsables du groupe nag. waaw ci mhm. solidarité boobu mu ñu woo sew leader mais solidarité moom inshallah bu mu ci am benn xel ñaar parce que. ni ma koy waxee gaal gi ku foog ne bu bënnee keneen la bënnal ku dul yow sa bopp yow ma ca ne nax nga sa bopp kon yàlla na gaal gi mucc ñun ñëpp suñuy am bu mucc biraan nag neex na jàppale parce que euh, buñ ci yàggee sa xëy na dafay nuru ak catoog yeneen mais li ñu gis rek la ñu mën a wax waaw bu ñu gisoon leneen nit ni ma ko waxee keroog ci ndajam samedi ba wax ko waaye ñun na te loolu du maa ko wax ñu jóge ndaje ma ñoo ko wax ndax fii Sénégal xam nga ñëpp ay mbokk lañu dañ koy waxante ba mu yegg daal di doon benn taxan fenn fi te euh, wax dëgg yàlla seede yëpp maase na kon dañuy ñaan rek yàlla jàppale ko yéeneem yegg Alaaji Assane Gueye programme bi ay dolli rek si programme bi waaw xam nga fas wi daw kenn ko kenn ko changé mhm. parce que moom dangay ngay da ngay rek kon incha allah ci bépp fànn danañ ci toog ndax ñun ak defandoor la liggéey bi xam nga ñun newuñ ci caserne sapeur wala caserne gendarmerie <laughs> wala caserne soldat ñu baal ma mbokk takk der ndax am nañ solo lool ci ci sécurité réew mi mais du foo xam ne da ngay taxaw rek ak say galon ne nii lay demee dañ koy defandoo yëkkatindoo dóorandoo moo tax saa yi ñu dóoree rek gars yi xam. voilà Niassène Gueye vraiment euh, ku la dégg euh, xam ni euh, xel dal na waaye yéen tamit yéen ñaar ñëpp muy directeur général ak le directeur de la RFM yéen tamit ni ngi leen ni ñaanal ngeen yàgg fii te ànd ak wér ndaxte yéen tamit fierté ngeen en 2018 mille dix huit ngeen doon ah. vraiment des directeurs yoo xamante ni que mën nañ wax ni tey mën nañ wax ni c'est la nouvelle génération rawatina ak le directeur général à Assane Gueye pourquoi xel yi war a euh, on a un directeur général jeune. -hmm. que euh, non non moi je juge les gens par les faits. Euh, du jeunesse break de dama wax depuis le 3 le 3 octobre c'est la date à laquelle j'ai été nommé à la à la tête de la radio. toutes les demandes qui ont été portées au niveau du directeur général ont été traitées avec la diligence vraiment pour maintenir pour volonté militaire. nit nit nit nit doo ko jugé mu ngi mel Sénégal kuy ree rek dañ naan baax na. dangay mhm. noppi sax ñu ne daa bon fekk da nga rek jàmbure. Mhm. man DG dama koy jugé sur les faits. li ma li ma lay wax nii bu yu ma fent gis nga ndaje ndajeem samedi bi rek kii ñetti fan ñeent lañ ko waxandoor rek daal di koy jokk ak moom mu génne les moyens accompagner ndaje bi mu am ñëpp waxtaan xalaat génn fa pexe génn fa pour.

taay nag si daal loolu boo ko génnee li ma wax sànq rek. Mhm. gërëmul nit doo gërëm yàlla. léegi li ci def mooy ñun tamit bëgguñu kenn jàmm bi naa ni na mooy ñëw gars yi génne njàmbaar gi. Mhm. incha allah. Mhm. Euh, lépp gën a jëm ci kanam wax nga ko sànq. mais du c'est c'est c'est pas que la jeunesse c'est la volonté politique. oui pas bi ak yéene bi. donc wax dëgg yàlla. Euh, yàlla na yàlla mottali lépp yàlla bu yaakaar. amiin directeur. mais en tout cas bonne fête.

Euh, muy muy muy bi avion bi ci génn ah kilifa gu mag gi ba ci directeur général daal di koy génne na mu gën a gaawee ñu war a yebal ndaw incha allah Daouda Diouf fii ak le 3 mu dem mu dem Gabon euh, ci mbokk yi Antonio Ogoula euh, Vincent sama sama rakk ndeysaan daf ma bëggaloon boppam malheureusement bi muy bi muy wàññeeku maa ngi hôpital clinique euh, médicale donc bëggoon a teew loolu jëndul ma Kaolack mais gars yi teew fa ci anam yi mu gëne foofu tam la maison a sorti moyen pour gunge ko dans la dignité ak njabootam daal leen di masawu. et cetera euh, tey démb si Kals soxnaam wàññiku. soxnaam ndeysaan soxna Kals. waaw dafa ma rappelé moom tam woo woo Kals ci boppam moom directeur général bi randour def ci diligente li ci war euh, c' est vrai que kenn mënut indi indiwaat bakkan waaye nit ki mën naa am na xaram nga busal ko xolam. te ah. taxawee na ko wax dëgg yàlla ñu ngi ñu ngi profité de l' occasion jaale mbokk yi wàññeeku jaale Kals soxnaam et puis ah. encore une fois di ñaan suñu borom mu mu gëj ci lool. Mais en tout cas, je vous remercie euh, beaucoup, Aladia gay Vraiment, je vous souhaite euh, une bonne heureuse année 2019. Directeur général Biran Ndour, en tout cas, je vous souhaite une bonne heureuse année 2019, que cette année 2019 soit une année de paix, de, santé, de prospérité, de joie, et puis beaucoup de bonheur, et puis beaucoup de khalis en hein, directeur, avec euh, une réussite totale. Oui. Mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de khalis. daat oui. dégg dégg naa xaalis bi waaye man nañ dégg li may tëjee. Eh, looy tëjee. <laughs> rigueur. Mhm. solidarité ak performance. Mhm. rigueur solidarité ak performance. loolu bu amee rek xaalis bi ñëw incha allah. Alaaji Assane ngeen na dégg nga wax ji. incha allah DG loolu non dégg nañ ko lool loolu dinañ dinañ ci gën a nekk ndax ci lañ nekkoon mais dinañ gën a yokk. dañuy gën dañuy gën a làbbali fas bi rek. parce que wax na dëgg nag xam nga kër tam du def lu mu àttanul xam nga sa kër sax bala nga dépense da ngay eh, suñu suñu papa yi daan génn fay la ji bind rek nga naan dañoo nay ay bi nga yoree kër si daal xam nga ne nay yi dañoo xool lu ñu àttan nak lu ñu àttanul <laughs> en tout cas je vous remercie énormément merci Birane euh, en tout cas bonne fête BG bonne fête Birane bonne fête à tous les auditeurs euh, surtout waa waa waa Génération future Média Génération future Média mention spéciale directeur ouais merci Génération future Média mention spéciale waaw Sidath euh, merci. ah merci euh, directeur. Ben, ben, petit mot rek de la fin ñu ngi ñaan yàlla. mais am na lu gars yi di ñaan fii di directeur xaw ma xam euh, di mais ban temps booy ngeen fiy joxe. ci premier janvier boo xam ne dañ koy denc quoi. bàyyi bàyyi boobu pour une prochaine fois. <laughs> mais vraiment le le le. le dernier mot oui. waaw le mot de la fin waaw ma ngi ñaan euh, vraiment si élection présidentielle yi ñu jëm. oui oui appel à la ah, paix. nous donne vraiment apaisement. Mhm. Euh, ni ci dem si ak responsabilité. oui. waaw l'ol d'al vraiment la ñuy ñaan si réew mi. parce que mhm. ñun fii Sénégal jàmm lañ xam. Mhm. et je pense que maturité électorale gars yi am nañ ko que les choses se fassent dans la transparence et la démocratie. Oui, c'est important ça. Merci beaucoup, directeur général. Merci. Allez, bonne fête. salut moi aussi, Madame Dou. Hein. merci beaucoup. Allez, Hassan Gueye, euh, salut moi Madame Gay.